jeewali iblisa isnataytuhu biya wali ayasa minni lawhin da jeewali iblisa isnataytuhu biya wali da jeewali iblisa isnataytuhu biya wali يخدعوك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت الله جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل صدق الله العظيم nuyu sa gouvernement nuyu ñi ngay àndal ñëpp waaye dalal la ñaanal la jàmm dalal sa xel lii may wax nag mu mel ni dëkk bu mu mën xewee noonu lay demee nag kenn ku soilu mën a xew maa ngi si ànd ak ñaari maire tey mu di sama xarit Cheikh Niang ak suma mag di sama jigéen soxna Kumba Jaw Cheikh ñaa bu aafe ak soxna Kumba Jaw bu sagata néegi di yaakaar naa soxna Kumba Jaw fekk naa ko ci kër Serigne Cheikh te at bu jot noonu lay defee Cheikh ñaa moomu tamit noonu lay defee kon nag dama la bëgg a wax foofu rek ne la lii xew fii feneen fu mu di xew ci beneen commune rek ñun ñëpp ñoo bokk taxawaay ndax nag lépp ñu mën ci mooy ni cérémonie officielle bu amee ku ci nekk ñun sa jëmm bañ a tekki lu bari nga nekk ca la nga xam ne mooy tey nit ñi la état bëgg ak ñaxew ne la ñu bëgg nga taxaw ci loolu su yeneen jotaay amee wala demee neneen nit ñu taxawoo ko ko war a taxawee waaye mu mel ni monsieur le ministre bërki démb day dama toog seetaan télé yattaale boobaale loolu wala fi di wax ma seetaan waa Bargny monsieur le ministre am lu ñu wax ci seenu préfet mais bu ñu sañoon daal préfet boobu nañ ko fa bàyyi ak lu mën ci xew am nañu ci droit ndax nit boo nekkee moom mu rafetal soo yëgee ne dafa waaru toxu wax dëgg yàlla dana am loolu yëpp li ma wax ko rek bëri ki démboo Njaay loolu daf maa xaw a daal nag ci sama sous-préfet di monsieur Bokar Coulibaly ma dégg ne ci communiqué conseil des ministres yàlla dogal ne dafa war a jóge ci sama arrondissement te xam naa ne lii may yëg di ko wax nii wallaahi Kumba Jaw bu jotoon ci kàddu gi loolu lay wax Cheikh Niang bu jotoon ci kàddu gi loolu lay wax Aboubacry bu jotoon ci kàddu gi wala Cheikh Assane ñoom ñëpp lii la ñuy wax. seede yàqul dara mu nekkoon ak ñun ci diir bu gàtt rafetal ci façon boo xam ne ñun ñëpp daf ñu kon dañuy ñaan li waj illaahi taala sunu mbokk moomu di Bocar Coulibaly ngeen gën ko bàyyi xel lépp loo xam ne mën na jàkk ci ay mbiram rek ngeen dugal ci seen loxo ba suñu borom jagal ko su ko defee ñu ngi nuyu yi nga xam ne ñu ngi fi ñu ngi fi dégg sëñ Cheikh yàlla dogal ne xamantuñ ak ko sargal di ko ndokkeel bu baax a baax ak naataangooy député yi yëpp ñu ngi nuyu mbooleem kilifa bu fi teew mu mel ni Serigne Gana yàgg nañ ko suivre dafa fekk ne bu ñu doon doy lu tey suma sëriñ maa ngi leen nuyu bu baax a baax si di la ziar bu baax a baax di yóbbante nuyoo ci sama sëriñ sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si sëriñ dafa wax wax bu am solo ñun ñi nga xam ne tey monsieur le ministre dañuy yëngu ci àdduna doyoon na rek tey ku ci yàlla dénk nguur te nga bëgg a jaruñu nga fexe ba leetar ba nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké radiallahu anhu bindoon na ko taalibeem boobu di jëwriñ de Serigne Samba Lawbe waaye waaye nga tax ko ci sa bureau rek bët bu nekk bët bu ko diir moom la Serigne Gana doon junj fii sànq su ko defee su ñëpp doxalee noonu rek dootuñu noonu réew mi dana jàkk lépp luñ fi bëgg a def dinañ ko fi def jàpp naa ci mbindu Serigne bi ñaar ci wàllu leer boobu Hadj Malick maa ngi jégalu wa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk bi nee na dafa am yeneen yitte yoo xam ne war nañu suulee su ko joxee ñu jox dara xëy na li ñu yéene ñeneen ñi bu ñu jotee ci kàddu gi dañu ko mottali incha allah jërëjëf sëriñ. ñu ngi sant yàlla julli jëmante bi ñu ngi sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax sant koo xam ne dañu am tàmbalikaay ñu am yéemukaay di sant Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax bis bi bu ñuy jur si sëñ bi ñu ko baaxoo di demee noonu la ko defee ànd ak njaboot gi def ci Cheikh Mamadou Mountakha sàkk ci moom ndigal ndax bu ko Cheikh Mamadou Mountakha newoon gis mu am dootul amati ndax fii kërum ndigal la ñu ko Cheikh Mountakha borom ndigal mu demaat ci suñu baraka ndax fii ndigal la fi toog ñu ngi ko yàgg di wax ndax yéen ñëpp li ngeen faral wax juróom ma di ci jaaraat dëkk bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul moo ko sànc bi mu ko sàncee

te ñu bëri réere ko mooy Serigne Touba ak Serigne si Absa ñoo bokk Serigne Mor Anta Sali Serigne Touba ak wilaayaam ay rakk mu ko defaale amul benn rakk mu ko opposé wu bi mu wootee rakk bi yëpp ànd ak moom lépp lu Serigne Touba am ay rakkam la ci njëkk a tibbal wala mu njëkk a tibbal kenn Serigne si ak keroog doon doomi Serigne si Absa ba bari wàllu buur bi mu tuddi kat lam te doon Sénégal yëpp xam nañ mais li ko gën a lool da nga xam ne moo nekkoon fiertem mooy doon taalibu Cheikh Mahamadou Fadal doon taalibu Cheikh Mahamadou Fadal bu yëngu ci woon bi fi sëñ jógee li muy juróom jur sëñ Modou Moussa Diagne mos li muy jur jur jur alaaji Cheikh Oumou Mbacké Cheikh Mahamadou Fadal ne mos la toogal moom ci kaw lal alaaji sëñ Pako mi ngi ne moo wax léegi ñun ñëpp sëñ Cheikh Thioro moo la yàgg kon foofu sëñ Cheikh Thioro fala ak njaboot nekk ba tey jii di wax mooy dañ taalib Sëriñ Tuubaa du taalib seen càkkaro kenn mus leen moom te kenn leen moom ak démb ki maam Cheikh Tuubaa daal wax naan amul taalib ak bu kenn jaawale am nañ taalib mais ñàkk ñu fayda kon Serigne Tako ak El Hadj Cheikh Mbaye ci comité organisation bi njaboot Serigne Cheikh ba seen fay ndax kese Fall li muy réeréer yéen a gis cër kon ñu ngi sant ñëpp ci turu Serigne Cheikh Ndiol ba ci seen fay ndax bu kon kàddu yi kàddu yi ngërëm la woon lu jëm bi su ma daan rek ñoom mën naa fee guddee loo xam ne rek wax la ndax nga xam ne gouvernement bi taxaw nañ may leeral tuuti historique dëkk bi dëkk bu yàgg ànd ak gouvernement ndax Serigne Cheikh Dior Mbacke mi ngi nii ku gore na waaye Serigne Tàkko ñu ngi leen sàkk ngeen ñaanal ñu ko ndax am kilifa ba am kilifa neex am kilifa bu jub di ci gën mhm. ñun de yàlla dañoo bu ci am lay xeet amul ndax bu yàlla dimbaloo ñu am yenn kilifa yi tey jii duñu résister bi ñu mën a résister yi mhm. kon ñu ngi ñaan ngeen ñaanal ñu ko suñu borom bàyyi ko ba li li ma waxaat léegi ci esprit bi daal di histoire en 2009 wala 2008 biñ fi war a indi courant courant bi dañ ko gàttal yóbbuwaat ko yeneen mbàkk daal yi jamono yooyu président Macky Sall bii mu nekk ministre de l'énergie sëñ Cheikh Dior leeral ko mu ne ko loolu nu mu mën a nekk balaa courant dëkk boobu tàkk courant mbàkk daal dina tàkk ba pare kon Macky Sall bu dee am na jëf-jëf yu baax li ma sa defal mbàkk daal jëf jooju loolu ñu téye courant boobu ba courant mbàkk daal tàkk mm-hmm. sëñ Cheikh Dior ne ko jëfal na sëñ Tuubaa mais sëñ Tuubaa dina la fay ñeenti àndal di teg Macky Sall dégg président de la République Sénégal taal bi mu taalal Coran Mbacké Bari wér na ma wér yàlla moo ko def président de la République Sénégal awu ci duma ci sibsan kon président de la République son excellence président Bassirou Diomaye bu mhm. jëlee réew mi ñetti weer mu def leen tool yi mu fi def mhm. ñu bàyyi ko sëñ Touba waaw ñun duñu wax dara sëñ Touba ñu koy bàyyi président Ousmane Sonko damaa wax ko am solo mu ne ma su ma jëfalee su ma xoolee ne yàlla rek a tax ma defe moom dama koy bàyyi yàlla sa bi ci bëri El bi am yéene yéene premier ministre Sonko di am yéene yéene lii la am ndax boo mu fi sën nga fi nga fi taalibe nga te jëf ji li muy réer réer di neex neex mooy yow mi ko def doo taalibe Serigne Touba mhm. am nga feneen foo jokk feneen foo yaakaar mhm. te ki ñu xayoon lii taalibe Serigne Touba ki ñu xam ne bii taalib Sëriñ Tuubaa wax naa ko assemblée nationale ñëpp di dégg kon yow li ñu naan jub jubal jubanti lii lu extraordinaire bi wax yi wër Jolof yëpp tënk ko bu leen seen waar kon boo leen xoolee loolu ñu ànd ak yéen di xeex ñu xam ne ko ngeen ñëw di ngeen réparé loolu ñun njaboot seen cercle sant ñu leen ci mais li leen di sant sant Sëriñ Muntaxa moo di gën sant ndax jëf ji buñ am murit boo ci kontaanul sa diggante Sëriñ Tuubaa war na ko seetaan ak jëf ji buñ am murit ba ñu kontaan sax ngeen ne Sëñ Tuubaa war nañu kontaan kon monsieur le ministre El Hadj Malick Ndiaye yaag délégation bi nga a eh. sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant sant boo xam ne mu ànd tàmbali kaay bi amul yemu kaay di la yóbbu ci son excellence président de la République Diomaye ak premier ministre ak membre gouvernement bi yëpp tey bu Mbàkke Bari mu suka xewoon président Diomaye bu tey am ku yónni ndax moo leen am ñu ngi fii ci Mbàkke Bari kon loolu yëg ngeen bis bi considéré ngeen kër gi kon ñun li tax audio xeex rëccuñ ko li ma wax léegi ci bi ñuy ànd ak yéen di leen jàppale chaque wut woon boo dee ba am li nga bëgg ngeen am loolu ñu fay ñun réew mi taxul ñu xeex te xewoon bu xewaatoo ñu def liñ defaatoo dara sant bu baax na li ñu yéene woon ëpp na lii mais mi ngi sant njaboot sëriñ Tuubaa yëpp ndax fii këru taale bi sëñ Cheikh Thioro dañ daan dénkaane mooy seen seen dara bu mu génn kër sëñ Fàllu kër sëñ Cheikh Thioro lu fi génn lépp kër sëñ Fàllu Hmm. ba dañ cee fier na ndax sëñ Fallou xam bi dëkku Sëriñ Tuubaa bu ko toftale hmm. sëñ Cheikh Thioro mooy ne kii nañu wax ko ndax xam nañ lan la ñu hmm. bu toll ne sëñ Cheikh Thioro ci njabootu Sëriñ Tuubaa sëñ Fallou rek am maa la ko wax de. li sëñ Cheikh Thioro defal sëñ Fall. maam Thierno Birahim la xamal ko defal sëñ Touba amul. Mhm. bokk nit bàyyi di tërbiyu ko ba mu ne jéem de jéem aada mooy su fekkee sëñ Touba jóge na fi nga dem jaay bi sëñ Touba sëñ Cheikh Thioro dafa nekkoon donga tërbiyu sëñ Fall. Mhm. ñaqal sëñ Fall ba bi ko sëñ Fall gërëmee gërëm leen toog kër sëñ Fall mosu faa jëlee borom ceeb këram la toog di dund bu mu wóor ko mu mhm. ci loolu la njaboot sëñ Cheikh ndax li coow li li ma commencé politique musuma gis ku bokk njaboot seen jox ku gouvernement fay xaalis ba ngeen opposé wu te xoolal njaboot yi politique yi sant bàkk ñëpp ku ci nekk état bi sax moom ko ñaari nit ñu saaga ko dégg loolu amul njaboot seen jox mhm. vérifié loolu li tax ñu may ko mooy ngor ak dignité ak deret bu baax kon ñun fi ñu doo xam nañ ko baax ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp kon sëñ bi nee na leen ziyaara ci turu président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. di leen indil nuyoowu le premier ministre Ousmane Sonko ak mbooleem gouvernement bi ñu àndal. di jiital ci nuyoo bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa suñu papa suñu xarit Chérif Ismaïla nga xam ne amul frontière ci Jolof waaye di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu papa Serigne Cheikh Tako ibnu Serigne Fallou Mbacké li teg ko ci xarit bi nga xam ne suñu wayjur suñu xarit la suñu seddoo la di Serigne Cheikh Jërël Mbacké mu jotale ko mbooleem ñi fi teew waaye mbooleem taalibe yi di nuyu ministre yi nga xam ne teew nañu fi ma man ci ràññee sama ay mag di Chérif Diouf ministre secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur Alpha du secrétaire d'État chargé des coopératives agricoles waaye mën naa ne du ministre de l'agriculture et de l'élevage di nuyu le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi nekk en même temps secrétaire général de PASTEF di l'infatigable Ayib Daffé su ma ko nuyoo nag damay nuyu député yëpp ndax dañ fee bari macha allah ba mënuma leen lim di nuyu gouverneur bu Louga nga xam ni liggéeyam wane na lépp loo xamante ne ni ci moom lañuy sant les pouvoirs décentralisés ba yaakaar naa ni bokk na ci raar gouverneur yi nga xam ne bi ngeen di dégg remaniement bi bokku ci may wax ne soxla wuñu ku ñu ko changé dañ ko soxla ba ci kanama kanama kanam di nuyu adjoint préfet di nuyu sous préfet dinaa ci dellu waaye may nuyu maire yi fi teew yépp rawatina maire bi ñu dalal di suñu mag Moussa Ndiaye boole ci suñu yaay soxna Kumba Jaw boole ci suñu nijaay sëñ Cheikh Ñang di meeru Afe waaye mboolem meer yi fi teew ak yi fi jaar directeurs généraux yi mënuma leen lim ndax daanaka ëpp nañu quinze dama xamul nag Serigne Cheikh Thioro Mbacké lan la defal senegal maa ngi nuyu presse bi bu baax a baax ak mbooleem ñi ñu àndal ndax li ñuy wax tey bu ko àddina di seetaan yàlla ci seen loxo la ko jaaral bi di nuyu nag tundu jolof yi mbokk yi dañu fi teew ci turu président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak première ministre bi ngeen xam ne seddoowu kër gi la waaye tamit ki nga xamante ne ni mooy ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine yabal fi conseiller technique bi yor affaires sociales ak religieuses ak doomam nga xam ne taxawaay bi ñu ko santoon lépp def na lu ko ëpp soxlawul ñu koy lim kon teewaay bi fii tey mënul nekk lu dul ak cant ndax ñëw nañu fi ñëwaat fi ñëwati fi ci yeneeni anam tey ñi ñëw fi ci yeneen anam loolu nag mbirum sunu boroom képp la ndax ku xool histoire borom dëkk bi xam na lépp lu mu am ci pasteefu la ko amee moo tax musuma xel ñaar ci ni pasteef bi ñu àndal résistance biñ doon def ala kulli xaal dañ ciy am ndam ndax sëriñ Touba dafa wane yoon wi bañ rekk bañ nooteel xeex nooteel moom sa bopp mënal sa bopp sëñ bi daf ma dee sànq ni ma ñi ngi dooraa am indépendance loolu nag am na lu muy firndeel dëkk bii nag dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne ñooy màndargaal bañ ndax xam naa ci dara nag màggal gi weesu gaka jiitu am na lu fi xewoon ndax bariwul li ñuy dem ci cérémonie officielle ñu jël opposant rawatina nag ku bokk Pastef di ko jox parole sëriñ bi ne ala kulli xaal dañ may jox parole sous-préfet bi fi nekkoon ne du ci dal damay ragal nag ne dañoo jaawale sous préfet booba ak bi fi nekk tey <laughs> ba tax na xëy na waaye dinaa leen wax ne du du moom kooko xame naa ko bu baax a baax waaye sëriñ bi ni mu ko naqar la woon ma koy ñaan ne ko ngir yàlla bàyyil noonu nii moo gën ba ca topp yàlla def ñu takkal ñu ndombay tànk ba tax na mënuñu woon a ñëw waaye sëñ bi daa fa dem ba suñu kër daara jolof ngir naqarlu loolu wallahi azim kon xam nañu fi mu ñu taxawee waxuma nag ñaan yi ndax ba fi premier ministre Ousmane Sonko ñëwee mu dugal ko ci nag boobee nga xam ne ku fa yàlla yóbbu war ngaa sant ma ñëw fi mu dugal ma fa a booba laa xam ne mbir yi dina sotti kon président de la république ak première ministre ak gouvernement bi ñu ngi leen di sant cant gu amul àpp di wax ne lépp loo xam ne dëkk bi am na ko du suñu ngóora waaye lu dëkk bi yeyoo la comme yàlla daf ñu fee teg Basiiru walla Serigne Basiiru wala président de la république Basiiru Diomaye Diakhar Faye yàlla may ko xelum ni samaw bàkk de mooy jub jubal jubbanti ah ñu jéem a topp ci tànk yi rek ak ndigalam daal di jubbanti kon sëriñ bi kàddu yi mën naa bañ a gudd ndax ñi fi nekk ñëpp dañoo war a wëlbatiku ñii jëm Touba ñii jëm Ndakaaru ñii jëm fa ca des waaye li am solo daal mooy kontaan nañ lool lenn rek lañu sàkku mooy ngeen wéy di ñu ñaanal ba lii nga xam ne mooy suñu mbébét ci réew mi ngir Sénégal moom boppam moom boppam bu tax ñuy wax nga taxoon sëriñ Touba di xeex ak mbooleem yeneen kilifa diine yi yàlla def mu jaar ci suñuy loxo waaye di sàkku ñaan ba yéene bi nga xam ne am nañu ko ba li ñëpp bokk ñépp jot ci yàlla def ñu matale ko ci suñu ay xam naa ni yàlla dina nangu seen allahuma kon nag ñu ngi koy dagaan bu baax a baax kon mbokk yi ginnaaw bi ma santee mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ànd ak ñun santaat bu baax suñuy kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yombal lépp loo xam ne gis ngeen ko fi waaye dañuy wéy di sant kii nga xam ne mooy Serigne Cheikh Thioro Mbacké ndax nag Eh, am na fu mu féete ci yoonu murit am na taxawaay bu mu ci am ah waaye ñun tamit gis nañ taxawaay bi mu am ci Pastef de te taxawaay bi mu am ci Pastef xam nañ ne fi mu bokk ak fi mu jógee ak yar bi mu am moo ko ko may ci fulla ji ci fayda ji xam naa ne su ma waxoon ay atam fii ñi ñi ne ma déet loolu mënul nekk waaye nag yàlla mooy def noonu ab jàmm te yaakaar naa ne ñi gën a taxawal diine gën a liggéeyal seen réew ci ba seeni at bi néew lañ ko def moom nag dafa bokk ci ñooñu fu mu dem ma nga fay taxawal yoonu murit ma nga fay taxawal Mbàkke ma nga fay taxawal Jolof waaye ma nga fay taxawal Sénégal kon nag dañ koy sant moom ak ñi mu àndal ndax liggéey bu mu liggéeyal parti bi ca ba muy metti lool ba parti bi mel ni lu jaxasoog yoonu murit lool ba nga xamante ne nii danga naan sax Pastef daanaka ñoomoom moom Tuubaa gi yëpp ñoo moom murit yëpp ndax rekk liggéey bu rafet bi mu ci liggéey ànd ci ak ay ñoñam mi ñoom Cheikh Ibra ñoom Xabbaan ñoom Ahmalo ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci coordination départementale bi wax dëgg yàlla mënul lañ cee sant kon nag mbokk yi ngir bañ a guddal loolu moo nekkoon kaddu yi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ngeen dellu ci jàmm ca daaneel ga nag mooy damay ñaan yàlla ngeen ñaan yàlla nangu lépp lu jëm ci wàllum accident yi yàlla yamale ko fi ndax xam naa ne su ngeen ko ñaanee mën naa nekk rawatina ci xew-xew bii nga xam ne ci lañ moom lañuy ñuy dëgmal mu di 18 safar di màggal ak Tuubaa gi matuwaay yi ci war a jël yépp daanaka yemb na la ca des nag ginnaaw yàlla mooy ñaan yàlla askan wi def la sëñ Fàllu waxoon rek daw ndànk dal ndànk jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kat bi mënoon naa ko bañ jël ngir ñi fi jël kàddu seeni wax dafa mat sëkk dara desu waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku dul sant yàlla du sant doomu aadama ku dul sant lu tuuti dul sant lu bare rawatina nag ñoo xam ne deful ñu lu tuuti lu bari la ñu def monsieur ministre mi ngi lay nuyu di nuyu euh, premier ministre Ousmane Sonko di nuyu président de la République Bassirou Diomaye Faye di nuyu ministère intérieur di la xamal ne itam ni ko sëñ Cheikh Thioro waxe sànq si ci kilifteef rek lañ mas di tënku ci lañu mas di yëngu te ci lañ fas yéene nekk ba ilal abat bis bi ni ko baaxoo def ren mu ngi toll ci ñaar fukki at ak ñeent bu ko ëppul benn at waaye laata ñu ci tàmbali dara booba ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa mooy Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu lañu dem ci moom xamal ko ne ko Mbàkke Bari bi dafa am melokaan boo xam ne buy sañoon jot ci yow ndigal wutal ko bis boo xam ne saa bu dikkatee ñu daje fa fàttali ko seen ñu màggal ko bu bis ba jàllee lu ca facce ñu fexee taxawal daara ñu fexee taxawal jàkk ja loolu lañu waxoon moom wax ko Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala mu xamal ne noonu Mbàkke Bari bi moom bisam mooy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar te Cheikh Mamadou Fadilou xas na ko wattu Touba ba àdduna bépp di bii bis daal leen dënd ba mu yàgg mu ne dangeen di seet bis ba mu dajeeloon ci juddug yonent yàlla Isa noonu la ko waxee di seet bis ba mu dajeeloon ci juddug yonent yàlla Isa daa ne ndax yàlla ko yónni woon te dat boobu dat bu wér la te du te buy toxu te du buy soppi buy tam ñu daal di ko ne waaw fukki fan ci ut la woon mu ne kon na ngeen koy màggal diirub mu di fi nekk nag buñ ca def dara te demuñ ba jox ci diiru ba fi bàyyi ko itam ñu sooy ci Cheikh Mouhamadou Lamine moom da daan bàyyi seen yépp sax ñëw moom teewe si bis moom moo jëkk a doon xalif général si màggalu Mbàkke Bari moom it mosuñ caa def dara te tàgguñu ko ñu di ko wéyal di ko wéyal ba ci Cheikh Sidi Muxtaar mosuñ fee def dara luñ waxtaan tëg moom ba ci sax Mouhamadou Mountakha ni ñu ko ñaanal ak yàgg lool ak wér moom fi toogee ba léegi mosuñoo wut ci bis bi wax ci benn kàddu de témuñ ba ci moom ñu wax ci ak moom mu joxe ci ndigal gannaaw buñ jaaree ci suñu kilifa Cheikh Abdou Baraka te saa buñ ko ko waxee bu ñu daaneel def naan dem nañ ci Sëriñ Mountakha ñu defawaat ko nañ ko defoon mu jox ñu ci ndigal kon ñu nga ko junj sànq ba buñ agsee ci atum ren jii mu soob suñ borom ci seenu bëgg seen réew bëgg doomu aadama yi bëgg jub bëgg jubal bëgg jubbanti ni ñu ko waxee yàlla dogal sénégalais yi rawatina ndaw ñi tànnal leen seen bopp teg leen fi ku ne xam na ne sénégalais yi ndaw yi ñoo jël seen volontaire wateel facilement teg leen kenn mësul gis élection bu buy jub ci lu toll ci euh, ay fan yu néew ñu gàttale ko nañ ko gàttale ñu joxoñ Bassirou Diomaye Faye ñu ànd ak moom dama ne président Ousmane Sonko bu ma joxoñoon sax man ma di sëñ ma doon président de la République loolu réew mépp xam nañ loolu man mbirum seen Fess nga xam ne du ma xam fu may tàmbalee fu ma yem bu ma ne bu ma joxoñoon rek mënu ko rawatina nag yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak moom ci ay borom xam-xam bon bon kon bu ngeen toogee ci jataay bu yàgg di bii fekk dëkkub Serigne Touba bii ndax lii ngeen fi def kat defalu leen ko Cheikh Joore defalu leen kenn Serigne Touba ñu ko defal te ku defal Serigne Touba Serigne Mountakha nga ko defal kon Serigne Mountakha moo leen di sant moo leen di gërëm moo leen di ñaanal ak Serigne bare Baraka mi nga xam ne mooy sunu buntu seen Serigne Fallou te ndigalam rek lañ toogee fii ak njabootu sëñ Fallou bi gépp kon monsieur le ministre cant gi daal am na fu mu tàmbalee waaye am na mu yem waaye nag bisimilah sëñ Touba ngeen tàmbalee di ko liggéeyal dox leen rek da ngeen xam ne sëñ Touba moo am na fay. sëñ Cheikh Thioro junj na ko sànq président Macky Sall benn yoon laa gisee ak moom maa ngi ko fekk ci këram ga ca yaraax sama xarit bu ñu wax sëñ Maguette Mbaye boole ma ak moom. maag si ma nuyu ko mu sëñ mbay na ne ko kii de sama xarit la sëriñ Cheikh Joor Mbàkke la tudd dafa am nag lu mu bëgg ma ne ko sama xarit nga nañ fa ànd président Macky ma loo bëgg ma ne ko bala la xamal ne la fa nekk ëpp juróomi néegi ca àll la ma bëgg fa mu ne ma ban ak ban ma ne ko ndox ak courant mu ne dënd ba mu yàgg mu ne ma ndox mi de dana am mu muñandiku ndax ndoxum Touba maa ko réglé ci 3 milliards fond bi maa ko ñëw barab sang waaye courant bi moom insha allah danaa ci jéem lu ma man daal di wax soxnaam ne ko sëriñ bi bu bindee lettre bi subaa nanga ma ko jox nga dugal ko ci kuréel bi nga ko tontu ba wax ja di jeex mu ne ma ah man de sëriñ bi dama am lu ma soxla ma itam ak lu mu doon mu ne ma diw sàngam bi bu pexeem jooyee dootuma doon dara ci réew mi ma ne ko ah, man de du ma la saraan du ma amee jibaar waaye dëkk bii ma la wax de mën na maa wat ne lii ma la wax boo ko fa defee kookee ngay wax yàlla mën na laa yóbbu sax foofee nga toog sëñ mooy seere ci man kon bu si ab xëy ne jàpp naa ne lu am ca loolu la ko am mu dal ci fukki fan lañ ci teg mu joxe ci ndigal ñu fànq ko parce que bari moom yàgg nañ ko xeex fànq ko ñaari at yu mot sëkk moom àgg na ci sama waa kër mii noonu nañ kàddu Marème Faye ci sama téléphone fixe bi newoon ci kër gi ñu déggee ko mu taxaw ca taxaw ca taxaw ca taxaw ca taxaw ca ba yàlla dogal ñu sax ko fi fukki pota ak juróom-ñaar dëkk bi am ko yàlla di dogal muy dox dem bu gàtt yàlla jox ko mu nekk ministère intérieur diir bu gàtt yàlla jox mu nekk président de la république ba ma jëkk màggal bi fi jëkk président Abdoulaye Wade fekk na mayoon nañu poste de sant mayoon nu aw yoon mayoon nu forage mayoon na daara moderne président Macky Sall bi mu ñëw ci màggalu Touba mu publier ko daal ne liñ façon yéene ci Mbàkke Baay ndax moom xamu ci woon dara waaye ci booba lañ ko daal di soppar ñi ba yàlla dogalee ñu toog ab diir magal gi ak si ma yebal délégation ne leen dem leen ci ci fii représenté président de bi République délégation ba dem fa ba ñu demee mu xamal leen na leen kooku kat lay Wade laa àndaloon noppi wu ñoo xeex noppi ñoo xeex noppi wu ñoo xeex ba 2019 li président Diomaye ñëwee ànd ak président Ousmane Sonko ñu ko suñu Cheikh Thioro wax waxtu tisbaar mu ànd ak moom bu ñëw fii daal na ana néeg bi Sëriñ Tuubaa waajee woon mu mën ko ko mu laaj xasida gi ñu wan ko ko mu fasante ñoom moom wëllare ñu ñu fasante ak moom wëllare keroog lañ ñu teg bët ba nëgëni dara am na mu ñu jël Mbàkke Baari kon bu ngeen toogee matul un mois ngeen am pas-pasu lépp luñ fi luñ ñu fi xañoon ngir yéen ngeen am ngor gu toll ne fas ko yéene jot lu matul weer ngeen réalisé bi yéen fi def kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom li ngeen yéene ci réew mi bëgg ko ci yàlla nañ ko ci yàlla defal maa ngi leen di xamal ne nag. senegaal yi nag duñ leen mos a jaawale kenn ndax dañoo sonnoon na juróom benn fukki at ak lu topp kenn mësul ñeme tudd Ousmane Sonko boo ko tuddee rek sa duna yàqu te loolu yéen du seenu doxin ndax ay jullit ngeen réew mee leen ñoom moom ngeen di liggéeyal kon royu leen ci Sëriñ Tuubaa jéggale leen jëlle leen fas yéene liggéey Sénégalais yi ba ilal abad dañ leen fi bàyyi rek loolu daal maa ngi ñaan yàlla ci barke bi sëñ Touba te fanweeri at ñeent fukki at réew mi tege ci loxo ko seet ñu liggéey ku liggéey boo xamante ne di kaw jot te bu ma ko waxee nag rafet naa ci jot insha allahu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëfati wane nga ne doom nga fi taaliba nga fi mbokk nga fi xarit nga fi jolof jëf jëf jëfi jolof jolof jolof moom day day sot moom dafa dafa dafa bëgg mbokkam kon na ñu ngi lay sant di la gërëm di yóbbu di cant ci président Ousmane euh, président Diomaye premier ministre ministre intérieur ñu ngi ko waxee lépp loo xamante ne waxoon na ko rek ñëpp ko sant gouverneur préfet sous préfet liggéey nañ ci liggéey bu am solo am solo am solo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant kilifa diine yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci Jolof bu ma waxee ne tal bi ndax sax si daal di Maalik radiyallaahu taala am lañ la tuddee muy sa wasila euh, benn doomu bàyyi la ko yàlla dénk. ñi ci des ñëpp ñu bokk ak moom ay bàyyi la waaye benn ku El Hadj Malick ku mu benn bàyyi kenn la moo sama maam ak ndeyu sëñ Fallu ñoo bokk benn ndey kon boo doonee taalibe El Hadj Malick sama taalibe ja damay wax ne man Jolof moo fi mu frontière waaw kilifa diine yi nekk ñëpp ku ku fi kilifa aada di ceddoo sama mbokku mbaay nga ku fi doomee soxna dëkk aafi wala nga dëkk feneen yàgg yow yow wajur sama yaay. kon bi Jolof moom dama fi tëddi njaaxanaay awuma fi frontière ñëpp samay bokk lañ ñëpp samay xarit lañ ñëpp samay wëllëri lañ te rafet nañ jot ci leen lii nga taxawoo Mbàkke Bari gii ci taxaw bu rafet mboolem dëkk diine yi nekk ci Jolof leer nañu ne taxawaay bu mel noonu moom nga ci am moom la ci président Diomaye di am moom la ci président kon ñu ngi leen di sant leen gërëm di ñaanal yàlla soxna ami seex yi soxna am maam am yi du bàyyi mu te santuma ko gërëm ko ñaanal ko taxawaayam naka jekk nii dama si mel baas bii at mu jot ak la cee ànd lépp ak taxawaayu biir kër gi yëpp at mu jot moo koy def defini bu rafet xoolu ne ci sama mag la xoolu ne sama doomu baay la dafa ma jàppe ni woy juram ni nga xamante ne sama yàq ñëpp noonu la ñuy ànd ak man topp sama gannaaw loolu itam moo may sëñ Cheikh Thioro lii mu am sëñ Touba dafa wax ne man-manu àdduna man ak say bokk waaw sëñ Touba daf ne. man manu àdduna ma ne say bokk am amu àdduna am nit ña xam-xamu yàlla xam-xamu àdduna xam yàlla wax ne boo bëggee ku la gis bëgg la loo am bokk ko nit ña kon ñu ngi leen di sant di gërëm di ñaan yàlla waaw di sant yàlla bu baax nag ci njabootu Cheikh Mamadou Fadil gi nga xam ne yàlla danoo boole ñoom ñu bokk ak ñoom ndey ak baay mu sëriñ alay sëñ tàkko ak alay sëñ dañ cee gën a ràññiku ngir ci keppaaram lañ yoroo waaye suñ Cheikh Thioro moom noonu la meloon ci njabootu Serigne Fallou yëpp yëpp yëpp yëpp rawatina nag Serigne Abdou Karim mi nga xam ne moom la ñu gis kon ñoom amuñu seen pay lépp lu ñu nekk rek ànd nañ ci ak ñoom ci àndin wu rafet lu ñu xam ci taalibe wala luñ ci am suñu wajur moo leen koy jàngale suñu wajur nag ak taalibe rek mooy lébu safaan kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ballu ak yëpp hmm? Serigne Tissim Aïda moom mën na maa wax ne euh, moom xam na ma xam euh, bi ma ñëwee fii te mu jafeñ lool wéet na ma ak moom xamal ko sama bopp boobu ba tey nag mu jàpp ma jàppale ma di ma ñaanal di ma teete di ma digal lu baax di ma tere ab safaan mën na maa wax ne sama sëriñ la ndax diisoo na ak moom ci yu bari mu féete ma foo xamante ne moom xam na ko man xam naa ko kilifa diine ci tund bi noonu la bu dee sunu nijaay sëñ Cheikh Faty maam Góor Saane Niang la mi ma mi jur sama yaay sama ba sama maam ñoo bokk tafsir baara xujj Niang bu dee Cheikh Amadou Tidiane si mii nga xam ne moo ne fi Medina sama maam mooy bàjjanam sëñ Fallou Umar mi ngi nii mu sama nijaay kon ba noppi nag di sama xarit moo xam ne lu ma nekk xam na ko umpuliwu ci man dara daf may wax ne ma nit yaa ma gën a doy ci sama bopp waaye may dama koy wax ne ko moom ma gën a doy ci sama bopp du ñu umpati ci dara noonu laa mel ak ñëpp nag di sant nag meer yëpp soxna Kumba Jaw boroom këram yu taale bi boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu taala la jokkoo bi bisu bi Cheikh Abdoul Ahad mu yeesal ko ci man ànd ko soxna Kumba nga xam ne ñoom kër gi eh, kër guñ miin la mbàbba daawul def dara lu màggal Tuubaa sax moom fii da ko daan ñëw di ko fi defe si sunu nijaay meer wu affaire e, ñëw na fi mu suñu xarit ba ki dem rek laa ko jot ak moom tel eh, tonom Moussa Ndiaye nag waxuñu moom sunu xarit la sunu wëlda la suñu dëkkandoo la monsieur le ministre ñu da dénk itam sunu sous préfet bi ñu ngi koy dénk bu baax xamaluñ ko lenn lu dul lu baax loolu la fi jëfee bi ñu fi ñëwee ba nga kon nag buñ jàppee nag am na erreur boo xamante ne dafay xewoon moom mu ñëw te buñ gisee sous-préfet rek jàpp ne déedéet kooka bu fi newoon man maay jàmmaarlu ko moom tey waaw <laughs> maay jàmmaarlu moom tey kon ñu ngi lay ñaan di ko ñaan ministère intérieur di la ko ñaan ngeen taxaw ci bu baax eh, nañ ñu ko sàmmoon bu baax te taxawul ñu ko soxla nañ ko fekk nañ ci soxlaa suñu gouverneur bi lañ ko soxlaa kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla defal nawet bu barkeel bu tandu te mu ànd ak jàmm ak sutura màggal gi ñu dëgmal ak liggéey bi nga xam ne bi nga jëlee transport ak léegi liggéey nga ko ci yàlla na ci yàlla defal ndam lu kenn musta ci jàmm ak seddu guy ci barke bi sëñ Tuubaa barke bis bi wa rahmatullahi taala wa barakaatu wali iblisa iznataytuhu biya wali ayasa minni law hinda wali iblisa iznataytuhu biya wali wali إبليس إذ ناديته بيا ولي